Alioune Soumaré ñu ngi lay nuyu. waaw Babacar Sénégal daal di nay validé tikkeem jëm ci qualification tour bu mujj éliminatoire coupe du monde gannaaw ndam li nga xamante ni am na ko démb digganteem ak nami bi ñetti bal ci benn. ban jàngat nga am gannaaw googee jongante Alioune Soumaré yi. jàngat bi ma si am mooy d'abord di jaajëfal euh, joueurs yëpp. ak sélectionneur yëpp. ndax ndam bi ñu am tax nañu qualifié pour deuxième tour mooy pour barrage ñu war def. waaye bi ñu bi ñu leen jaajëfalee ba pare ah, dañu taxaw seetlu seetlu bi mooy euh, taxawaay bi ñu am tey taxawaay boobu daal daal dalul xel dalul xel ndax gis nañ ne nami bi lu muy tuuti tuuti tuuti euh, dugal nañu but tey dugal nañu but keroog bi ñu joué samedi à Thiès si hmm. ah, défense Sénégal boo xam ne ay joueurs yi fa nekk ak góol bi ay kàngam lañu loolu moom dafay indi tuuti jeexi jaaxa. Mhm. donc moo tax ñaari jàngat yooyu laa sam dara di leen jaajëfal waaye nag des na liggéey bi des na lu bare bare ba. si mhm. organisation football bi ndax def fa taxawaayu défense bi. Mhm. parce que mënuma d'accord ñuy encaissé ay but contre Namibie à deux reprises. loolu moom rafetluwuma ko. wax nga ko daanaka lépp yembul woon équipe bi xar kanam bi dese naa ñoŋ rawatina suñu digganteeg Namibie nga xamante ni moo jël. 107e ci classement mondial bi nga xamante ni FIFA siwal na ko fukki fan ak ñaar ci weeru ut gi wees. waaw mooy boo waxee loolu 107e bi loolu mooy wane ne ñu rawee nañ ko 106 places. Mhm. donc xam nga koo rawee 106 places kooku vraiment boo leen sëggee di bëri wala ngeen sëggee di joŋante euh, jël bi dafa war a gaaw ba pare rafet ah. waroo si am benn jiixi jaaxa. Mm-hmm. donc loolu nag moom la ñuy moom loolu la ñuy ñaawlu tuuti mooy gàkk-gàkk bi ñu gis si ñaari ñaari jongante ñu am ak ñoom. Mm-hmm. moo lay wan ne taxawaay bi encore si équipe bi des na. moo lay wan ne défense bi aussi des na tuuti surtout si si yi. ci boori ñaari laaf yi comme ni ñu ko waxee. Mm-hmm. ñaari laaf yi daal des na tuuti tuuti pour pour arriver pour pour pour pour mun a jongante ak équipe yu kàngam yu mag a mag a mag yi nekk en Afrique nga xam ne ñooñu ay attaquant de race la ñu am ñooñu booy dajax ñoom il faut nga am taxawaay bu mat sëkk. ci mm-hmm. ginnaaw ci diggante ci digg bi ak ci ci ci ci laaf mm-hmm. waaw. alors ci tour bu mujj bi ba tey jëm ci éliminatoire coupe du monde bi Sénégal nag boo moyewul mën naa dal ci li duppee gros mu mel ni ak taxawaay bi nga xamante ni équipe bi am na ko seen digganteeg nami bi njàqare mën na am Aliou Soumaré. ah oui taxawaay bi ñu taxawee dem ni mu dajeex kàngam moom dina jàqare bu rëy am parce que. Mhm. Euh, yeneen équipe yooyu nga tudd kàngam yooyu. Mhm. ñooñu ñu si bëri coupe du monde yàgg nañ cee dem. boo jëlee exemple nga jël Tunisie wala nga jël Maroc wala nga jël Nigéria même Cameroun bi nga xam ne sax temps seen seen taxawaayoo des na yàgg nañ dem ci ay coupe ñoom ñoo ëpp foofu li ñu taxaw coupe du monde ko Sénégal ñu ñaar yoon lañ ko demee di di di di wut ñetteel bi donc ñooñu seen taxawaay ci coup du monde daf leen di jaral lu nekk organisation bi ak moyens yëpp ñooñu boo seetloo dem coupe du monde moo leen gën a sax ñëw kan ñu ci bare mm-hmm. donc moo tax taxawaay bi dina métti donc il faut ñu liggéeyaat bu baax a baax. Mm-hmm. ñetti weer a des avant kan bi léegi dañuy profité si kan bi nag waat bu baax a baax a baax baax baax a baax ba nga xam ne. Mm-hmm. bés bu tirage ba la jotee double concentration éliminatoire boobu barrage yi. kun ci am ñu mun taxaw taxaw bu rafet parce que Sénégal mënul bañ a dem ci coupe du monde bi Sénégal mënul am taxawaay bu rafet bu rafetul si si kan bi ndax fi ñu toll la. Mhm. Hmm. loolu leer na ba tey ci euh, waxtaan bi mu mel nii euh, temps bi des na ngir liggéey waaye nag faw rek ñu daal soobu ci googee liggéey ndaxte Coupe d'Afrique bi ay weer képp moo dox suñu diggante ak moom Alioune Soumaré. waaw ñetti weer moo des sax suñu diggante ak moom ah ñetti weer daanaka. Mhm. donc euh, gàtt na gàttul léegi liggéey bi daal mooy équipe bi il faut ñu am taxawaay bu gën rafet taxawaay bu gën a rafet si si si si si joxante jokkalante bi ah diggante défense bi attaque bi milieu bi il faut mu gën a il mu gën a ratax il mu gën a ratax ñagas ñagas bi si am mooy moo ñuy sonal toujours moo tax équipe bu ndaw bu ñu dajal sax dina am maanaam wax dinañu sonal lool lool lool donte Sénégal dina ci génne toujours di gagné ndax daf ci am ay ñoo xam ne ay individualité comme ay Sadio Mané comme Idrissa Gana Gueye wala Ismaïla Sarr léeg-léeg ñu jékki-jékki rek génn benn affaire dem dugal hmm. mais loolu ay raid solitaire lay doon wala ay ay kii la daal alors du lu du ñuy togg ba nga xam ne nga xam ne bit baa nga ñëw foofu nag la war a gën a góorgóorloo bu baax baax a baax a baax ak hmm. taxawaay bi ci ci laaf yi comme ko xewoon hmm. alors lan nga jàpp ni infec imperfection li nga xamante ni war nañu kaa gomee li ñu war a gomee mooy ni ma wax léegi rek mooy si on d'abord damay commencer si défense bi défense bi ñaari ñaari ñi taxaw si digg bu baax nañ mais ñaari laaf yi ba léegi moo des. Mhm. sabali bi mu bi mu gaañoo ba léegi ah. Mhm. côté gauche moom yàgg nañ koy jooytu gaa donc ba léegi côté boobu moo des donc donte sali Ciss mi ngi mi ngi mi ngi def ay jéego mi ngi mi ngi mi ngi góorgóorlu bu baax mais placement am ak positionnement am des na. Bouna Sarr bi nga xam ne nag moo nekk moo nekk euh, ci côté droit moom lañ jël bu yàggul. Mhm. kooku tam ay ay mbiram des na tuuti ndax. taxawaayam dafa des ndax moom li muy joué ci Bayern la bariwul donc ba léegi dafay manqué compétition. Mm-hmm. donc loolu daal laa gis ne war nañ ci liggéey bu baax a baax. Mm-hmm. attaque bi nag moom il faut a a a a mm-hmm. ñi nekk ci kaw yëpp. waaye football nag balaa ngay mën def dara il faut nga jot bal. mu ni turu mujj bi tamit dina nekk li nga xamante ni du yomb ci Sénégal. ah <laughs> retour boobu moom du yomb si kenn. ni mhm. muy jafe si Sénégal lañ lay jotee si Algérie noonu lay daal jafe si Nigéria ñoom ñëpp bu dee qualifié nañ parce que faw nga am koo ci dajal. Mhm. di nga dem fekk ji ko mu fekk si la. si ñaari match mu nekk mu nekk match bu métti doon parce que ku ci kan ku ci dem coupe du monde. Mhm. te équipe yooyu seen taxawaay baax na seen seen soo xoolee éliminatoire yi sax les résultats yi ay Algérie di am. ñoom dañuy jàpp dañuy cartonné rek ngeen moom Maroc ñoom dañuy ku ñu jàpp moom dañ lay dóor dóor dem sa te boo ko seetlu poulu Sénégal ci éliminatoire yi moo gënoon yomb yeneen poul ndax poulu Sénégal bi amul kenn si ñoom muy Congo muy Togo muy nawet kenn ko si qualifié pour pour pour bi mhm. moo lay woon suñu poul boobu poul yomb la woon. Mhm. voilà. alors ministre des sports Matar Ba daal ne yéy yàbbi ci objectif yi ñu mhm. assigné sélectionneur national bi mu di Aliou Cissé nga xamante ni ma fàttali ko yeesalaat na contrat am ci diirub ñaari at Matar Ba nag moom daanaka. yëf yi leer na Aliou Cissé dafa war a gañee kan bi ca Cameroun amul benn excuse bi nga xamante ni mën naa valable bu ñu lajjee trophée continental bi est-ce que ànd nga ak kàddu yi nga xamante ni ministre des sports di Matar Ba yëkkatina ko jëmale ko ci sélectionneur bi di Aliou Cissé. ndax moom bu baax à pour cent ndax. Mhm. lu tax ma ndax moom pour ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari raison. Mhm. raison bu njëkk bi mooy joueurs yi ñu am ñoo gën sur le si continent bi. Mhm. poste par poste boo jëlee gardien de but ba ca Sadio Mané ca kaw kenn amul lu ñu li ñu am loolu loolu moom leer na. Mhm. beneen bi mooy sur le plan de fédération bi ak état bi li taxawee équipe nationale bi nga xam ne barke démb rek lañ leen jox passeport diplomatique pour ñu mën a voyage sans problème. Mhm. di leen jox avion présidentiel affaire primaire affaire yooyu kenn waxatu ko Sénégal. Mhm. loolu yooyu yëpp dépassé na ko donc conditions yi ñu teg hôtel yi ñu di jox. bu ñuy dem bu ñuy dem jouer ji euh, mission avancée yi gars yi def foofu équipe bi comme équipe européenne sax gënuñu taxawaay sur ce plan la mm-hmm. léegi nag la si des mooy <laughs> gagner parce que boo amee joueur am moyen yow entraîneur bi ñu fay la salaire boo xam ne vraiment nit mën ko dégg nga liggéey li la laaj rek mooy fexe ba ñooñu nga am joueur yu baax yooyu nga am nga fexe ba ñu mun a ànd. def ay résultat mm-hmm. donc euh, ñàkk jël coupe bi moom euh, kii lay doon ci ñun échec bu rëy lay doon kooku moom je suis tout à fait d' accord avec le ministre. Mm-hmm. man d' ma ñii di wax une coupe ça ne se décrète pas. Mm-hmm. coupe da koy décréter parce que boo naree ga ku cin bu naree reex xaw ma naree ba xaw nu koy waxee. cin bu naree reex su baxee xeeñ. <laughs> Uh-huh. war a xeeñ. Uh-huh. Uh-huh. gars yi di joué mu woon na la boo demee sauf catastrophe da ngay xam ne kii de mais. loo xam ne sa mbaay bu teye nga mel ni bu subaa nga mel na. kooku du dal xel. donc euh, Matar Ba moom li mu wax moom waxu kilifa ko wax parce que li war si ñoom ñëpp wàccoon na ndax ñoom. Mhm. donc li si des mhm. su ma la déggee lépp yemb na. ngir ah ñu mën a andi bi. lépp yemb na parce que amul daal lu ñu wax ne moo manqué. Mhm. donc moom rek a moom moo war a liggéey sélectionneur bi moo war a liggéey. bu ko bu ay ay ay ay ay ay naataangoom tegalee ay dëgg sërëxal xam nu ñu koy waxee mun ko déjouer. loolu rek moo ko dese. Mhm. parce que yeneen entre yeneen sélectionné dañuy ñëw naan Sénégal moo ñu mun waaye nii lañ koy def te dañ koy gañe te saa yu ko defee saa yu ko waxee def ko. Mhm. donc moom moo war moom nag moo war a isse moom tam son niveau. très bien alors ñu waxtaan ci ñàkk nomination Edouard Mendy ci Ballon door moo gagné Ligue des champion Super Coupe ñu tab ko mu nekk góor bi gën a xarañ ci Ligue des Champions bi wees. mu daal di absenté ci list fanweeri joueurs yi nga xamante ni tabb nañ leen ngir ñu xëccoo ballon d'or ballon d'or 2021 ci misaal Gianluigi Donnarumma bi nga xamante ni moo gagné euro 2020 ak Italie bokk na ci list fanweeri jour yooyu mu mel ni contraste bi dafa saisissant Aliou Soumaré. waaw lii kañ kañ mus koo gis. Mhm. lii moom lu doy la parce que ni nga ko waxee Donnarumma boobu nga wax léegi Europa bi c'est moo ko jël. Mhm. ak ak ak Italie. Mm-hmm. waaye bi mu signé licence Paris Saint-Germain bi mu nee Paris titulaire fa à l'heure actuelle pour ñu waxee yow moo moo Navas dañu xëccoo place bu teyee kii góolu bu subaa kenn góolu loolu mooy le premier problème deuxième problème bi mooy Edouard Mendy moom à Chelsea moom kenn naatable ko mooy numéro un. Mm-hmm. donc te mu fay def ay muccaab def ay clean sheet mooy góolu na ay match yu bëri yoo xam ne encaissé wul bi moom ñu tuddee clean sheet li mu def si clean sheet kenn defu ko. Mm-hmm. waaw léegi nag euh, dafa am benn problème boobu en en affaire nomination yi. Mhm. bu dee africain nga mooy li ma wax da mel dañ lay dindil ay poñ déjà avant ngay commencer. Mhm. ndax ku sa couleur da koy dindi ba pare teg fële bu dee brésilien nga wala argentin wala européen moom. Mhm. ah dafa mel dañ lay yokkal ay poñ rek waaw voilà. mais tey lii moom kenn mosoo gis même ñu observateur yu bari ànduñu sax euh, dogal boobu. peut dafa nekkul Mendy ñoo moo tax bokkul ci liste fanweeri joueurs yi. voilà mooy li ma wax sànq. Mhm. bu doon bu doon brésilien nga xam. Mhm. Alisson bi mu toll si diggu dooleem dañ ko daan dem bi. tout à pas meilleur que Mendy. Mhm. voilà benn exemple ngi doon. voilà. alors le fait que Edouard Mendy bokkul ci liste trente jours yi est ce que mën nañu ko jàppee ak akum discrimination Aliou Soumaré. waaw moom mooy li ma wax sànq rek moom kañ dañ koy daf ko firnde. discrimination dafa am. c'est-à-dire que xam nga ñun africains on a am problème avec le sport on a un problème dans tous les domaines li nga tey jii boo nekkee ci équipe di football nekk africain nekk benn européen wala brésilien ngeen bokk benn benn poste il faut nga mun ko ñaari yoon mu wóor na ni kenn mënu ko kii mais à valeur égale doo jouer moo mm-hmm. il faut nga mun ko ñaar wala ñetti yoon mu wóor na ne kii ñàkk pexe kenn mënu cee dara nga mën a tuuti la donc discrimination dafa am côté boobu. Mm-hmm. moo tax africain bi fu mu dem ci sport il faut mu liggéey liggéey liggéey liggéey liggéey liggéey liggéey baax a baax ba nga xam ne et chaque jour nag da nga war a prouver mhm. amul benn jour parce que booy teggee sa tànk rek gars yi teg la si dugal keneen mhm. moo tax gis nga da ngay jël kaawu gànn gi mhm. bi bi bi ñoom fay naal dum di waa di ñëw ñëpp dañ noon doot bokk tout à mais gis nga dafa dem liggéey ak liggéey ba tey jii. Hmm. waaye naan du moom ay problème naan moom il faut mu xoolaat boppam. Hmm. parce que xam na ne fi mu nekk nii pour mu duggati si alors que waaye naan du ñëpp gis nañ ko si Europe bi ak Pays-Bas ku la waxoon ne dina nekk remplaçant doo ko gëm. Hmm. voilà donc Gana Gueye daal liggéey liggéey ba toll fi waaye il plus le droit à l'erreur. bés bu teggee tànkam rek gars yi dugg. Mhm. loolu la loolu la àdduna wax. alors Soumaré laaj bu mhm. mujj. ànd nga ci ñu amal coupe du monde ñaari at bu jot. waaw ah, loolu moom wax dëgg yàlla Babacar ànduma ci. lu tax. ànduma ci parce que ñaari ñaari at yu nekk kooku dafay dafay soofantal coupe du monde bi. Mhm. coupe monde il faut nga koy namm benn. joueur boo xam ne bu joué am na ñoo xam ne dinañ joué seen carrière ba de duñu xam duñu joué monde moo tax waajal bi ak éliminatoire yi dafay am saveur day am benn benn benn saveur boo xam ne yeneen éliminatoire yi du ko am xam nga équipe yu bëree ngi nii sax ñoom dem coupe du monde moo leen gën sax ñëw jël coupe d'Afrique des nations tellement que coupe du monde visibilité bi nga am moo rëy bien que kan bi léegi commencé am na visibilité mais euh, compétition bi tous les ñaari at yu nekk loolu moom daf koy sofontal c'est sama gis-gis. Mm-hmm. donc bàyyi ko tous les quatre ans nga bi daf koy namm. et puis yokk carrière u joueur parce que tey jii boo joué benn coupe du monde bugg a joué benn coupe du monde il faut encore être compétitif pendant quatre ans. Mm-hmm. donc c'est daf lay maintenir en haleine mais bu dee tous les deux ans boo si joué ñaar ñett rek mu koy soof. n'est-ce pas. Uh-huh. bi moom soo gisee ñu koy def tous les deux ans foofu tam naa si am jàngat. Mm-hmm. jàngat bi mooy loolu bi koy africain di CAF bi koy décider de c'était pour ñu ñu progresser c'est-à-dire ñu dab ñu gap bi am entre ñu nax européen ak américain yi ci sur le plan du sport fallait nga combler ko sur le plan des infrastructures mooy tabax stade yax yooyu donc il faut ñu il fallait que ñu dabu loolu. Mm-hmm. parce que dëkk bu organisé di tabax stade yu bari. Mm-hmm. ba pare aussi joueurs yi dañuy progresser ñaari at yu nga dem compétition bu mel noonu. di nga progresser di nga am visibilité di nga am ay contrat mhm. moo tax léegi Afrique ñu commencé dab le reste du monde mhm. boo demee coupe du monde bu njëkk bu coupe du monde boo daan demee ay Zaïre ak yooyu ay neuf ak leen leen daan dóor mhm. léegi da ngay dem coupe du monde ba au minimum di nga am quart national africain minimum donc ñu ngi góorgóorlu donc tous les deux ans bi daal euh, baaxul ci coupe du monde mais baax na ci coupe d'Afrique Aliou Soumaré jërëjëf jërëjëf Babacar jërëjëf merci